الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم افضل الذاكرين وسيد الشاكرين وامام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن سلك طريقهم الى يوم الدين سبحانك ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العزيز الحكيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gannaaw bu nu nuyoo nuyoob lislaam muy assalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh comme ni ko sunu xarit waxee waxtaan wi mi ngi jëm ci zikrullah ay ay aadaabam ay definam ak ay tegginam ak tam jeexit yi muy bàyyi ci dund jullit bi su ko defee nu war a tàmbalee ci wax zikrullah mooy lan baatu zikr mooy zikr mooy fàttaliku gu jullit bi di fàttaliku yàlla tudd gu jullit bi di tudd yàlla jaar gu jullit bi di jaar ci ndigali yàlla bàyyi gu jullit bi di bàyyi ay tere yàlla nan lépp baatu zikr da koy ëmb zikr day firi itam ndigal li nga xam ne wala téere yi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala wàcce ne ko jaarale ko ci yonante yi mu ñëw jóge kaw asamaan ñëw ci kaw suuf ngir teete nit won ko fi yàlla bëgg nit jaar fi jaarale fi àdduna bi te itam zikr moomu seeboo ñu misaale kon ak buum buum goo xam ne suñu borom yàlla daf nu ko yoor mu jóge ci kaw asamaan buum googu takkenu ak yàlla subhanahu wa taala yàlla mi nga xam ne moo sàkkoon nit takkenu ak yàlla ngir yàlla di nit ci yooral jaar la ci zikr yàlla di yooral nit jaar la ci buumuk zikr mbir yi nga xam ne moo koy tax a nekk moo koy tax a doon nit mooy tax ak nitam mat ak niteem mat te itam mooy tax ñu mën koo xàmmee ak bàyyi ma te itam ci buum googu ci la yàlla di yooral nit li muy mën a xamee lu tax yàlla sàkk ko ñu baree baree bare ci nit ñi xamuñu lu tax yàlla sàkk nit te yow mu réere li tax yàlla sàkk la mën naa andi ay musiba yu bari ak ay fitna yu bari ci àdduna ak àllaaxira ndaxte yàlla bi mu la sàkkee la tax mu sàkk la boo ko amalee kon buntu jàmm ngoog àdduna ak àllaaxira waaye boo ko amalul moo ndax amati na njëriñ nan ko jël misaal ci sunu àdduna bu suufe bii kan jël misaal ci xalima gii ñu defar waaw ñu jënd ko xalima gi wax leen ne biñ koy defar luñ ko doon doyee lu tax ñu defar ko lu tax bind bu fekkee ne bii bindatul lu ñuy wax ci xalima gi amatul njëriñ kon xalima dafa am lu tax ñu defar ko mooy mu bind loolee tax ñu defar ko bu fekkee ne bii amalatu ko xalima ga amatul njëriñ kon lu ci def sànni ca ñag ba ca poubelle ba nan jël misaal moomu ci doomu aadama moom tam dañ koo defar dañ koo sàkk ana ko sàkk yàlla subhanahu wa taala yàlla bi mu koy sàkk dafa am lu tax mu sàkk ko li tax yàlla sàkk nit bu fekkee nit amalutul loola kon lu ñuy wax nit kooku ah ak naka ma amatul njëriñ ñi ñi yaakaar na nit ki daa war a juddu su doonee gone ñu koy kopp koppal su màggee takk jabar wut métier liggéey am ay jabar am doom am kër di lekk ka naan ak solu bu deewee ñu gas ko suul ci bàmmeel la mu jeex waaw loolu mooy dund gi waaye nag lu ko tax a dund lu tax yàlla mi ko joxuk dund jox ko dund loolu ci zikr lañ koy xame zikr moo lay xamal bokk lu tax nu nekk suñu raison d'être ci kaw suuf si te itam ci zikr dong ci la nu mën a amee saada saada mooy dund gu neex ak bonheur ci zikr dong la ko mën a am kon buumug yàlla googu mu nu yoo biñ ci jaaraleel mbir yooyu yépp bu nu demee ba fasa fasalante ak moom ba tàqalikoo ak moom buñ demee ba buum googu jokkootunoog moom ndax mu mën a def ci nun yooyu mu war a def ci nun xamal nu yim nu war a xamal mott lil nu sunu ndoomu aadama war nu fi nu war a jaar loolu nit ki ko def kookee mooy ki def crime bi gën a rëy ci àdduna te it mooy ki def ndof ki gën a màgg ci àdduna ndaxte ma ngay gaaral boppam ci ak texee bi ci àdduna fi teew si ak ci àllaaxira moo tax su borom yàlla tabaraka wa taala wax ko surtu taaha aaya téeméer ak ñaat kon ñeent أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى borom bi tabaraka wa taala nee na képp ku du mooy zikr te zikr foofu dafa ëmb léppi zikr te léppi zikr li ko ëmb mooy wax ji yàlla wax muy alquran ak li koy leeral te mooy sunna sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñaar ñooy zikr ndaxte ci la yàlla jaarale lépp jumlatan wa tafsilan yàlla ne ku ko dëdd woon ko gannaaw su boobaa sa dund ci àdduna dina xat te bu allaaxira boo dekkee da ngay gumba moom mbakki jullit yi ki dekki allaaxira gumba dekkiwaalewul ay bët ndax dafay ngeen ne dina am yaakaar ci def àjjana yàlla na yàlla musal zikr ñaari xeet la zikr am na aam am na xoos am itam di ñaari façon ijaabi ak salbi zikr am ijaabi mooy nit ki tënku ci mboolem yi ko yàlla sant di ko def kii def ndigalal yàlla ma ngay zikr jamono yi mu koy def kay julli ma ngay zikr kay woor ma ngay zikr kay jàngale diine ndegam ngir yàlla tax ma ngay zikr ka toog di ko jàng ndegam ngir yàlla tax ma ngay zikr kay kay jox soxnaam ak doomam dépense pour ñu dunde ndegam mi ngi ko teg ci kaw wa ala almawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bilmaaruf ma ngay dundal soxnaam ak i doomam ca na ko yàlla bëggee te di ko def ngir yàlla jamono ba muy def loxo ba ci poche ba di génn di joxe ma ngay zikr kay jox miskin ma ngay zikr kay liggéey ngir wut lu mu ñaqe wut di ñàkk ñu wut lu mu lu lew lu mu yóbbu ca këram dund ci dund ci ak njabootam liggéey ba zikr ndegam jaaral na ko fa yàlla bëgg te jéem te yéen jaamu yàlla zikr ijaabi yi mooy loolu zikr sa zikr ijaabi am zikr salbi am mooy nga bàyyi mbooleem yi la yàlla tere mbooleem yi yàlla tere da nga koy bàyyi bu fekkee ne bi yàlla dafa tere sàngara bu fekkee ne bi yàlla dafa tere jëw bu fekkee ne bi yàlla dafa tere bokkaale bu fekkee ne bi yàlla dafa tara jikko ci ñaaw ci wax mbaa ci jëf loolu lépp jamono yi koy jullit bi bàyyi mi ngi zikr mu nga kooku mooy azikrul am azikrul xaas nag te mooy li nu tax a jóg tey mooy li nuy jéem a waxtaane zikrul xaas mooy liy daw ci lamm liy jaar ci làmmiñu nit ci làmmiñu jullit ak ci xolam ci sàbbal yàlla subhaanahu wa taala ak sellal ko ak sant ko ak tagg ko ak melal ko moom yàlla ci melokaani mat ak melokaani màgg akub taar loolu mooy zikr xaas kon zikr kon zikr dafa am am ak xaas xaas bi mooy loolu xaas bi mooy jullit bi nga xam ne dafa toog ak yàlla subhaanahu wa taala wala daal mu nekk ci barab bu mu mën a nekk aw làmmiñam nag di tudd ay turi yàlla aw la ab xolam tam ànd ca loola aw làmmiñam ak xolam am di tudd lu bokk ci turu yàlla yi wala melokaani yàlla yi di ko tudd ci anamu sellal yàlla wala sant yàlla wala tagg yàlla melal yàlla ci melokaani matam yi mu mag melal yàlla ci melokaani màgg ak taar làmmiñu jamono yi muy wax loolu xol bi ànd koog moom loolu mooy zikr zikr moomu sama borom yàlla da ko santaane yàlla tabaraka wa taala dafa wax ci alquran ci ahzab ay ñeent fukk benn jëm ñeent fukk ak ñaar يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا من يين نيغا خامن گم ngeen yalla na ngeen di tudd yalla tudd gu bare bare bare bare bare te di ko sabbal ci suba teel ak ci ngoon kon bok tudd yalla day lu yalla santaane sabbal yàlla day lu yàlla santaane daa war a bari des ko war a saxal suba ak ngoon loolu mooy li nga xam ne mooy temu waxtaan yi yàlla na yàlla may tawfiq leeral ko ba mu leer zikr kon suñ ko bëggee waxaat wax bu gën a gàtt bu gën a jege dañuy wax ne rek mooy jullit ba nga xam ne toog naag yàlla subhanahu wa taala wala nekk na foo xam ne fi xel mi dem na ci yàlla muy tudd yàlla muy tudd yàlla ak di ko fàttaliku mu ngoog moom la yàlla santaane noonu su ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal ci beneen aaya ci beneen aaya wax na ne fadkuruni azkurkum nee na yéen jullit ñi yéen jaam ñi yéen nit ñi dee leen ma tudd ma di leen tudd man yàlla waaw dee leen ma tudd te di ma fàttaliku man man yàlla itam ma di leen tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ñuy nett li ci hadis qudsi boo xam ne buxaari ak muslim solo nañ ko mu ne borom bi tabaraka wa taala wax na ne ana inda ganni abdi bi wa ana maahu xiina yadkuruni fa in dakarani fi nafsihi dakartuhu fi nafsi wa in dakarani fi malain dakartuhu fi malain xayrin minhu wa in iqtaraba ilaya shibran taqarrabtu ilayhi diraaca wa in iqtaraba ilaya diraacan iqtarabtu ilayhi baaca wa in ataani yamshi ataytuhu harwalatan borom bi tabaraka wa taala dafa wax ni jaat boobu mu ne man yàlla maa nga fa ma sama jaam jort sama jaam fa mu yaakaar ne falaa ko féete rek fa mu yaakaar ne falaa ne rek foofa laay ne ci moom te maa ngi ànd ak sama jaam jamono yi may tudd jamono yi ma jaam bi di tudd maa ngi nekk ak moom su ma tuddee ci barab bu mu ne moom dong barab bu wéetaay ma tudd ko ci wéetaay su ma tuddee ci mbooloo ma tudd ko ci mbooloo mu gën mbooloo ma mu ma tudd yal na nu yàlla may yàlla tudd nu ci mbooloo mu gën sunu mbooloo mi te yàlla boole nu ko yal na nu yàlla may nu saxoo tudd yàlla waxtu wu nekk ci fu nu wéete ak fu nekk ci mbooloo te tudd yàlla ga yàlla may nu mu doon ngir yàlla te it muy tudd yàlla gi mën a am njariñ te mooy tudd yàlla gi yàlla joxe ndigal ñu jaarale ko ci yoon wa sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam andi yàlla nu yàlla may ñu sax ca tudd yàlla googee te yàlla jox nu njëriñ ya borom bi tabaraka wa taala ne su ma sama jaam tuddee fu mu ne moom rek ci weetaay ma tudd ko ci weetaay su ma tuddee fu mbooloo ne ma tudd ko ci mbooloo mu gën a mu gën a baax mu gën mbooloo ma ma tudd te it sama jaam su ma jéemee jege dinaa ko gàttalu mbokki jur yi xool leen yàlla ni mu baaxe xool leen ni mu bare yërmande nee na soo jógee di jëm ci moom di ko jéem a jege nee da lay gàttandu yàlla ne boo ko jéeme boo ko wutee boo doxee wuti ko ab sebre nee da lay gàttandu ab xasab naka jur yi na xam ngeen sebre sebre mooy boo defee sa ñaari baaraam nii diggante baaraam bi ak baaraam bi moom la mag ngi daan tudde sebre boo jéemee jëm ci yàlla lu loo xam ne nii la war a toll sebre yàlla ne dinaa la gàttandu lu toll na xasab xasab moom mooy lii ndekete kon dem ci yàlla doonut lu jafe sunu góorgóorloo ci not bakkan sunu góorgóorloo ci moytu seytaane waaye ci kaw nu jaar ci ndigal ndigalal yàlla te ndigalal yàlla mooy topp sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam lépp lu nit def muy dikri muy leneen te jaarale woo ko ci yoon wi sayidina muhammad andi woon sallallahu alayhi wa sallam danga ci dul am dara ba dara booloo jël waaye boo xasee na ci ndigalal yàlla ja nekk ci yoonu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na boo ko wutee boo jëmee ci yàlla lu toll ci sebre yàlla gàttandu la lu toll ne xasab te itam yàlla ne boo jimsee ci man lu toll ne xasab nee na ma gàttandu la lu toll ne baa aw ab ñay ab ñay mooy lu tàmbalee ci sa bopp ba say ba say wex mu ngoon boo ma wutsee lu toll ne xasab ma gàttandu la lu toll ne ñay boo fekkee ne bii yàlla nee na soo ma wutsee te ni nga may wutsee gaawaay ba doon gaawaayu kuy dox man dinaa la gàttandu gàttandu boo xam ne dinay doon gaawa a gaawaayu kuy lakk xam ngeen lakk de moo gaañu kon yàlla moom dem ci moom jafe naa ñun ñii noo gàllankoor suñu bopp yal nañu yàlla dimbali ba ñu mën a dindi gàllankoor yooyu ci beneen xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi wane nga neeli zikrikat yi mu ne sabaqa al mufarriduun mu ne mufarriduun yi de jiitu nañu raw nañu ñu ne ko ya rasulallah ñan ñooy mufarriduun mu ne azzakiruuna allaha kasiran wa zakirat mu ne ñii tudd jigéen góor ak jigéen ñii tudd yàlla lu bare bare bare yeneen ci yàlla boole ci beneen xadis maanaam mën nañ cee jëlee ni ci xadis boobu mboolem xeeti jëf yu baax yi zikrullah moo ci féete kaw moo ci gën a baax moo tax ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan tudd yàlla ci jamonoom yépp jamono maanaam xaalam yépp yonent bi tudd na yàlla ba tàyyi te fekk daa toog te fekk daa tëdd te fekk daa taxaw te fekk daa wér te fekk daa feebar tudd yàlla ci waxtu wu ne moo tax itam benn waaye ñëwoon na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko l'islam bi ay santaaneem dafa xaw a tane dafa xaw a takku ci man te damay bañ sa am yu ma ci sàggane damaa bëggoon nga dénk ma nga nga nga nga tànnal ma ci rek loo xam ne lii danaa ci mën a góorgóorlu bu baax a baax a baax waaw bu ko defee yonent bi ne ko laa yazaalu fuuka ratban min dicrillah mu ne ko fexeel ba sa gimiñ gi bu mu denc di tooy te fekk la ko tooyal mooy zikrullah foo toll de zikrullah sa gimiñ gi sa laam ñuy waxtu wane nay tooy te li ko tooyal nay lan nay zikrullah te it du ma mën a yéex a wax ni zikrullah bi nga xam ne bi mooy tooyal gimiñ mu am njëriñ day doon zikrullah ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngale xam ko nekkoon ci bi ca nekkul yeneen ci yàlla dimbali yeneen bi dellu wax ne sallallahu alayhi wa sallam ala unabbi'ukum bi xayri a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa xayrun lakum min infaqi adh-dhahabi wal wariqi wa xayrun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qaalu bala ya rasul allah qaala zikrullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne wax saxaaba yi ne leen ndax du ngeen ñëw ma wax leen mboolem xeeti jëf yi ngeen di jëf ban moo ci gën a baax mbokki jullit yi du yéen da ngeen jëf ay jëf yu baax jëf yu baax yooyu ndax bën ngeen a xam bi ci gën a baax yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ndax du ngeen ñëw ma xibaar leen jëf ji gën a baax ci seen i jëf gën caa sell fa yàlla gën caa mën a yëkkati seeni daraja ba ngeen jege yàlla te itam jëf joojee moo gën làmb sa poos génn wurus joxe ci yoonu yàlla génn xaalis joxe ci yoonu yàlla te itam moo gën te moo ëpp doole jël sa jaasi dem jihaadeeg noonu lislaam bi ngeen di dagg seeni baat ñuy dagg seeni baat ndax du ngeen ñëw ma wax leen jëf ji gën loolu lépp ñu ne ko aha kay ya rasulallah mu ne zikrullah kon nag mbokk julit yi li lépp lim ni woon mooy zikrullah lu am solo la ci diina ji lu mat a xam la lu mat a jàng la am déet mu ngoog bu ko defee zikrullah mooy yoonu mucc mucc nun ñëpp moom lañu bëgg bari na fu waay dugg fu baax ak fu bon fu dëng ak fu jub ñaar dañuy dandi kii nekk ci fu baax kii nekk ci fu bon kii nekk ci lu baax kii nekk ci lu bon dafa ko ñu ñaar ñëpp mucc la ñuy wut waaye yoonu mucc moom dara gënu caa féete kaw zikrullah moo tax ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne maa amila aadamiyun amalan qattu an jaalahu min azabillah min zikrillahi azza wa jal rawahu ahmad yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam doomu aadama munta jëf jëf ju ko gën a mën a musal ci mbugalum yàlla zikrullah li la gën a li la mën a musal ci mbugalum yàlla amu ci lu lu lu lu ci mel ne zikrullah tudd yàlla tudd yàlla mu ngoog beneen xadis dañ ciy gise ne ndekete ab jullit wër ta toog ci jotaay ba jóg te tuddul yàlla te loolu mat a bàyyi xel bu fekkee am na ci nun ñoo xam ne ci subaak léegi fàttaliku nañu ab jotaay bu ñu toog moo xam ñoom rek a fa nekk wala ñoog seen soxna mbaa ñoog seen doom mbaa ñoog seen i xarit jotaay boo xam ne mat na fukki minit ak juróom mbaa mu ëpp ko wala mbaxoo koo yées waaye toog nañ ba jotaay ba tas te tudduñu yàlla loolu bu fekkee am na ci ñun ku mu dal tey mbaa ku mu dal démb mbaa ku mu dal ci semaine bi mbaa ci weer bi kon déglu leen li ci sayidna muhammad wax sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na man qaada maqaadan lam yadkur allaha taala fihi kanat alayhi min allahi taala tiratan wa man ittajaca madjacan la yadkuru allaha taala fihi kanat alayhi min allahi tiratan yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp ku toog ab jotaay ba jóg te tuddoo fa yàlla nee na jotaay boobee bu yemal xiyaamate da nga fekk ne ak manqué la te itam am nga ca responsabilité da nga ci am métit ci kanamu yàlla subhanahu wa taala képp ku tëdd ab tër da ngaa tëdd di nelaw ba yeew moo xam nelaw yi guddi la wala seef am da ngaa defeeru soonu di waxtaan képp ku tëdd ab tër ba tër boobee jeex nga jóg toog te tër ba tuddoo ca yàlla benn yoon sa tër boobee bu àllaaxiraa dina doon ci yow manqué manqué aku métti mbokk jullit yi kon boog ndax li muy zikrullah ndax doy na mat naa seet bu baax a baax ndax li zikrullah doy na wala doyul su fekkee doyul ñu jëm koo yokk kon léegi bu fekkee gis nañu zikrullah ay ngëneelam gis zikrullah ni mu doone lu yàlla fonk lu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam santaane nañ ko fonk te baril ko kon léegi des na nu xam lan mooy zikrullah xam tam xeet zikrullah yi ban ak bana ak ban moo ci gën am loolu du farata bu ko defee kon fi ñuy tàmbalee moo di xam le ne zikrullah am na ay xeet waaye bi ci gën te feeti ci kaw mooy jàngum alquran jullit bi ubbi ab kaamil toog di jàng alquran kookee mboolem xeetu zikrullah bi ci féete kaw ma nga ca ba ca gën ma nga ca kookee mooy ki nga xam ne ma ngay wax ak borom bi tabaraka wa taala bu ko neexee mën na ne ma ngay wax ak yàlla tey bu ko neexee mën na ne yàllaa ngi wax ak moom ndaxte li ci alquran ji yàllaa koy wax te moom la koy waxal ak mbokki jullitam yépp moo tax ba alquran moomu jullit bu ne daa war a ittewoo jàng ga te itam njàngum alquran faw nu ñëpp nu jógaat ci faw yéen ñëpp ngeen jógaat ci nun ñëpp nu jógaat ci kenn ku ne di ko tàmbalee ci man miy wax ba ci ki fi gën a néew ay at ak ki fi gën a bëri ay at nun ñëpp dana war a jàngiwaat alquran kenn ku ne nag ak mustawa ba nga ko war a jànge alquran géej la am na ñoo xam ne ñu nga ca tefes ga fere gu ñu ijji ñu ngi toll ci ijji ak liifant waaw luñ ci bokkal ci ay saar njàngum gumba la waaw njàngum gumba ñooñu ndax dañoo war a yem foofu rek bu ñu xëyee liggéey yi bu ngoo dañu liggéey yi bu weer deewee ñu jox ñu jot seen solde rek bàyyi alxuraan ji noonu déedéet am na ñoo xam ne géejug alxuraan yàlla may na leen ñu ñu ñu mos ci ak lëf naan nañ ci ndox mi xëy na xam nañ ci tuuti waaye liñ ci xam tuuti maa utiitu min al ilmi illa qalilan wax leen nag géej ku ko mën a naan waaw xajul ci benn biir de kon nag ki naan ci alxuraan bu baax a baax it na dem dal ji ki jàngoon alquran li ma bëgg wax mooy ki wa jàngoon na dem jàngiwaat ki wa jàngul woon na dem jàngi te loolu ab laabire la bu may jox sama bopp du leen ko jox su ngeen fi jógee daliwaat leen alquran te jàngiwaat ko te maa ngi fàttali ne sunu waxtaan jotaayu waxtaan yi munta am benn njëriñ bu dul nu nafar ci suñu diine dégg ci lu nu soññ ci yàlla xame ci mbir moo xam ne noo ngi ko doon sàggane te ndekete ëpp naa sàggane loo xam ne yàlla fonk na ko sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam fonk na ko te nun noo ngi koy bëgg a weefal te yëgunu ko woon mbaa seetlu wunu ko woon sunu mbokk mi nuy waxtaanal fàttali nu ko gannaaw bu mu fàttalee boppam nu daal di daw woggante ji foofee nga xam ne day bëgg a yoram du la lay jëriñ day kon ba maa ngi sàkku ci képp kuy dégg baat bii boo fi jógee demal jàngal alquran bu fekkee jàngu daloo woon demal dali bu fekkee dalal nga demal dolli ci sam njàng bu fekkee jàngoon nga ba mokkal alquran man koo tari man koo tajwid man koo firi xam naa sax ak man suux xam muhkam ak ak ak ak mutashabi su boobaa ndax xam-xami alquran ndax jot nga lépp déedéet tuuti nga ci jot demal continuer jàng mu ngoog kon boog ñun ñëpp nañ beesal itte ci jàngi alquran te itam gannaaw bu nu jàngee alquran ba noppi ba dëkk ci jàng alquran sax laay wax ba noppi gannaaw bu ñu tàmbalee njàng moomu nan boole ci suñuy jaamu yàlla bis bu ne nu toog ak yàlla jàng aslaf lu bokk ci alquran xaw ma ndax loolu noo ngi ko doon def xaw ma ndax loolu yéen a ngi ko doon def xaw ma ndax maa ngi ko daan def bis bu ne nga xëy xëy wut ci biir vingt-quatre heures bi waxtu woo xam ne bu ñëwee da ngay toog ni groupe toog ci suuf jël sab kaamil toog jàng aslaf lu bokk ci alquran njàng moo xam ne jubluwoo ci mokkal waaw jubloo ci mokkal loo mokkul woon ndax xëy na njàngu mokkal mi yaa ngi koy defe ci loxoy maalim ba lay jàngal wala ustaas ba waaye njàng moomu yaa ngi ci jublu li nga jublu ci julli wax ma rek bu nga kàbbaree di julli loo jublu loo jublu ci julli gi du jaamu yàlla du wéyal ndigalal yàlla jàngum alxuraan mi itam da nga koy def ngir jaamu yàlla ak wéyal ndigalal yàlla subhaanahu wa taala te itam jullit bu ne war naa am aw dog ci kaamil bi dog woo xam ne bis bu ne mu jàng ko kenn ku ne ci yéen na seet ba xam ndax am na aw dog dog woowee ndax xisib la am nisif la am ay xisib la waaye bu fekkee ne bi sunu sunu modernité gii nu nekke nga xam ne boo xëyee da ngay dugg ci dëkk bi ak coow li xëy suba teel ca fajar wata yi wata yi waxtu ndakaaru wata yi waxtu wu ñuy tàmbali yóbbu nit ñi ah cinq heures suba teel ñu xëy jëkkante wata ya boo amee wata taal wata ga tar tar tar tar aw yoonu biir Dakar mën a xaw nit ñi dañuy wuti Dakar lu mu doon aw yoonu biir Dakar nefa nefa nefa nefa nefa nefa ba digg bëccëg yenn saa yi sax nga sàggan a sàggan ba waxtu yu julli fekk la fa nga ne da ngay boole tisbaar ak takkusaan da nga koy boole lépp bismillahi rahmaani rahim jàmm moo ko la ko lebal wax bu ko la ko lebal bu guddee nga ne bu guddee nga fay tisbaar fay takkusaan fay timis fay génn yow da ngay fontoo yàlla loolu ëpp naa def tartar jooju nga xam ne mooy modernité modernité moo ko indi su boobu modernité modernité lu yàq suñu diine moo ko ci yàq modernité lu néew doole suñu liimaan moo ko néewal doole modernité suñu ruu lu ci lu ci lu ci lëndëm lu ci xaw a tënis tuuti modernité moo ko indi yàlla nu yàlla baal yàlla nu yàlla gindi waaye activité yu bari yooyu ñu am te ñun ñëpp ko am ci biir ndakaaru ak fudul ndakaaru nan ci sàkk ca waxtu ya féetale njàngum alquran tey nan bàyyi leb ay julli kuy leb da ngay lebanteeg sa moroom waaw bu fekkee yow mii jullit bi bëgg a boole tisbaar ak timis ak gee bu jële bu bu guddee nga fay ko nga fay ko bu fekkee mën ngaa fexe ba gis jibril alayhi salaam ne ko waxal na sama borom yàlla ne ko damaa bëgg a leb tisbaar ak takkusaan moo ko ko ñeme sax wala na ko ko ñeme waaw ba tey bu fekkee ñeme nga loolu te jibril tam ñeme na laa yóbbul leetar boobu fa yàlla yóbbante bi fa yàlla waxal la ko jibril wax ko yàlla li ma ci jaaxal nag mooy sayidna muhammad moom mooy buntu bi te moom nekkatu fi al yawma akmaltu lakum diinakum ñëw na ba noppi soppi dara ci ak ci islam bi wéy na loolu yonent bi moo fi mën a nekk bokk nga ñëw ne yaa rasulallah man day damaa bëggoon ku ma lebal julli ma bu bu bu guddee ma fay ko yonent bi laaj ndigal yàlla subhanahu wa taala yàlla ne ko waaw lebal naa ko maa moom sama julli sama jaama lebal naa ko mbaa mu ne lebalu ma ko na dem julli ji kon nooy def boo ko jógee ah loolu la noonu loolu la ñuy lebe waaye am na sarajo bi dama la koy leb te te te dama koy jël te tàgg wu ma la te xaw ma ànd nga seen déet loolu lépp la loolu fonto yàlla la nan leen tuubaat te dellu ci yàlla te bàyyi sàggane bi sàggane diine te alquran ñu xam ni daa war a bokk ci suñu dund gi bis bu ne nu wut waxtu woo xam ne bu agsee nu toog jàng lu bokk ci alquran su fekkee mënut doon wenn waxtu sax ba tey bu mu doon wenn waxtu waaye boog lu bon bon ci biir benn quatre heures bi bu mu paase mukk te jullit bi toogul jàng lu bokk ci alquran mu ngoog su ko defee boo ko dee jàng nga tàllal sam xel ak sab xol yàlla sottil la ci leeri alquran sottil la ci xéewal yi bàyyi koo ci yàlla subhanahu wa taala te nekk ci biir waxam jooji di alquran bu ko defee ngay jéem a yëg màggug yàlla ak teddem ji nga xam ne ji moo feeñ ci alquran mu ngoom mbokki jullit yi loolu kat xam le na ci diina ji li bokk loolu yi kat xam le na ci li sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam andi te santaane ko ci la bokk bis bu ne nga jàng aw dog bu bokk ci alquran mooy yéen seenu dog ci alquran bis bu ne nu mu toll seen dog bi ngeen di jàng bis bu ne ci kaamil bi nu mu toll kenn ku nekk na seen baxam aw dogam bi muy jàng ci kaamil bis bu ne nu mu toll am am na si yéen ñoo xam ne daañu toog ñetti fan yoo xam ne duñu ubbi kaamil bi ah loolu musiba la loolu musiba la jullit bi faaw mu am aw dog dog wi nag nan la nan la war a toll nan la war a toll loolu islam da koo bàyyi mu xaw a yaat ndaxte day sédd ne nit ñi seen ndabi jamono bokkuñu seeni circonstance bokkuñu kon day bàyyi kenn ku ne mu seetle mu man mu nga waaye li am solo rek jullit bi wërta toog waxtu bu waxtu wa jël ci ëllëg sa te jàngul lu bokk ci alquran waaye kaamil bi moom dañ ko war di wàcce waaw dañ ko war di wàcce te itam kaamil bu àgg dee sa war a tàmbali beneen mu nga kaamil bi boo ko dee wàcce gën jaa gaaw yi noo ko mën a jànge mooy bu mu yées ñetti fan bul wàcce kaamil ci lu yées ñetti fan ab kaamil kenn du ko wàcce ci lu yées ñetti fan loolu la boroom xam-xam yi wax sukkandiku ko ci xadiisu sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam ndaxte dañ ne ki wàcce kaamil ci lu yées ñetti fan ay léewal li mu doon jàng li ci war ci teewlu maanaa yi ak settantal ko ak xalaat ko du ñëw waaw ndax mi day gaaw day doon njàng mu ratata te loolu jaaduwul te itam bu fekkee ñetti fan mooy gën jaa néew ji borom xam-xam